ngi xëy si tey euh, Daaru Xuddoos tàmbali seen distribution nga xam ni mooy étape bi mujj ndax njëkkoon naa fee ñëw il de cela ay trois mois booba ca koor ga la woon monté comité de village bi dellu siwaat def montage commité de quartier instruire leen à ce que ñoom aussi ñu def seen ciblage ginnaaw bu ñu leen xamalee ne leen am nañu ci RNU neuf cent quatre vingt am extension aussi sept cent ménages extension nag bu ñu ko waxee lu ñuy ciblé ci directement ci quartier yi la te loolu comité de quartier yi ñoo am sañ-sañ ñoo am xarañte wu ñunu dëkkal ñu mën a càmbar ñan ñoo yelloo ndimbal lii loolu aussi ñoom ñoo koy def kenn ko ci ne lim ba nga xam ni village bi séddale na la ko parce que set cent ménages yooyu village yu Daaru Xudoos da koo séddale ci 13 quartiers kenn ku ci ne am na cër bu mu la ca jox wante loolu dafay yemo ak dayoo population ba fa nekk peut-être ñoom nañu ko séddalee mënuñu ne cent yi dañ ko séddale 13 13 quartiers nañu yem nañu yem ab lim déedéet parce que mën nga ci dem benn quartier mu am 100. comme tey am na ci quartier bu nga xam ni cent ménages am na ko ca loolo am na ci quartier bu ca am quatre-vingts ménage am na ci quartier bu nga xam ne am na ci soixante-dix ménages peut-être que fii léegi suba danañu dem ci quartier fekk mu am soixante dem ci quartier peut-être mu am trente-cinq ainsi de suite waa ne sept cent ménages yooyu yëpp ñoom les comités de quartier tànnoon nañu ko ciblé ko ba ñu ko defee tamit dañuy dellu si toog ak ñoom ñoom la ñu ciblé ñoom ci laa leen di enquête kenn par kenn cest ci liste bu ñu ma ñoom bu ñu nee am nañu lim nangam dama naa ne dajale leen nit ñooña benn béréb ca quartier ba man ma ñëw ànd ak sama commission bi nga xam ni député ngi ci woon représentant wu ndaw ñi ngi ci woon le conseil communal représentant wu forum civil a ngi ci woon représentant wu bàjjan gox yi ña nga ca woon représentant wu conseil consultatif des femmes mu nga ca woon représentant wu imam yi mi ngi ci woon représentant wu chef de village yi mi ngi ci woon mais amoon na aussi représentation wu délégué de quartier yi nga xam ne ñoo nekk ci biir Daaru Xudoos commission boobu noonu la tëkkoo fu ñu fi dem aussi ñoom dañoo amaat seen comité de quartier autonome bu xam ne ñoo defoon seen tànn ñoom dañuy bokk toog ak ñenu tànnoon nit ñooñee ma di woo benn par benn commité de quartier yi au niveau ciblage quartier la ñuy intervenir xam nga nee naa la am na commité village villageois comité villageois mooy tànnaat ay quartier am séddale leen ñoom ñooy monter seen comité de quartier jébbal ma ko man bu ko defee comité de quartier ba la ñu ko cëral ci extension ba ñoom ñooy def seen tànn ca gox ba ñu nekk ndax ñoo gën a xam ni ni ñoo leen dëkkoo bu ko defee ñooñee pour ñu def leen ci fiche yi nee naa la damay dem fekkiwaat comité de quartier ba fekkiwaat ñoonu tànn càmbar leen nag kenn par kenn ca ñoonu tànn nga xam ni danaa xam turu nit ki danaa xamu santam danaa vérifier carte d'identité ndax dañuy daal di carte d'identité ma vérifier carte d'identité ba dugal ko ci fiche laaj ko numéro téléphone am porté ko ci fekk na quartier ba moom xam naa ni soit Mokhlisine la wala Daaru Khoudoss 1 la wala boog Nasru noonu laa ko ciy dugale bu ñu paree dana ñu xool ñoom lañ leen joxoon compté waat ba mu mat ñu dellu si ci comité de quartier bi ak comité villageois ñu signé fiche boobee wane que ni lii ñoom ñoo ko proposé woon bi ñu ko dugalee aussi liggéey bi enquête nañu lépp te noonu lañ ko dugalee ci fiche bi bu ko defee fiche yooyu bu dajee nag ba village bi yëpp matal extension loola dañu koy jël yóbbu ko commune maire visé ko ginnaaw bu ko maire visé par lay remonté dem sous préfecture préfet visé sous préfet visé ko bu ñu paree ca liggéey boobu nag la ñuy jébbalaat lépp sous préfet mu boole ñu ak beneen yeneen équipe bu nit ñu nga xam ne bokkuñoo ñu nekkoon commission de ciblage ndax ñooñu c'est des vérificateurs ñoom ngeen gis ne ca kaw. ñoo nekk tamit fii ci kit yi di ko distribuer ñoom ñooy établir les bons yi nga xam ne ñoo nekk ne c'est-à-dire chaque fiche extension quartier la ca nekk ma nga yemook la nombre de bons ya bokk ca quartier boobu nga xam ne se les vérificateurs ñoom ñoo koy def ci supervision sous-préfet ak it waa CPRS ñoom ña nga fa ce sont des chef de service yi nga xam ne ñooy liggéey ci délégation générale bi nga xam ne moo dépendre ci ministère Mansour fay boobu ñoom loolu ñoo ñu koy defal ba sous-préfet bi visé ko ñu jébbalaat ñu nag le bons. ñi ñi ñi nekk ci ñun ñun tànnuñu leen ministère ñoo leen tànn délégation générale moo leen tànn moo leen formé moo leen xamal seenub liggéey ñun li ñu liggéeyoon étape bi ñu toll ñoom ñoo nekk les vérificateurs ñooy seet ba xam est-ce que yel est-ce que dëppoo nit ñi danañ ko gis ba mu mat la mu doon mais danañu vérifier identité yi ba mu wér danañu vérifier les numéros téléphone mais jëmmi nit ki dana toog taxaw ba ñu xam ni kii moom moom bon bi kii mooy diw sàngam mi ba ni muy génne nii di ko joxe ñoom ñoo fi nekk ba la sortie ñoo fi nekk toute cette chaîne de distribution là ñoom ñoo koy contrôler ñun à notre niveau lu ñu ciy wax lu leer état moo joxe ceeb bi moo ko jëlee Ndakaaru ba wàcce ko au niveau de l'escadron fii bu ñu dee wax ci commune Touba mais escadron ba ak village yi sori na sori gu nga xam ni parce que nag c'est la commune de Touba escadron bi commune de Touba la. non loolu la commune de dafa louer magasin de forage commune il s'est chargé louer loola. la première phase aussi lépp luñ ci def commune chargé wu na ci lu ne dépensé ne ko ci mënuma leen wax somme bi mais yaakaar naa ne ci assisté ci processus processus bi kenn xamul nu mu toll man xam naa ci dara mais c'est des chiffres. bon et puis c'est pas le loolu yëpp aussi ma di ci dugg mais xam naa ni commune a fortement participé ci biir lii ci biir lii keroog ba nga xamee ni toog nañu ñu wooñu pour cette dernière réunion de cadrage pour dem ci distribution au niveau de la sous-préfecture les présidents de commission la ñu woowoon ak le maire ñëw na il était là-bas préfet ak son équipe administrative ñëpp nga fa woon bi ñu waxee ne dañuy tàmbali alors que denrée yi ma nga ca escadron ba ñun man ci ñi interpellé le sous-préfet ne ko mais pour transférer lële fële andi ko o niveau des village kan mooy def loolu mu ne ma vraiment xam ne ko nag wooteel ministère ba moi je lui insiste à ce que na woote au niveau du ministère bi mu wootee au niveau du ministère ils ont dit que ni c'est à la charge des chefs de village c'est ce que le sous-préfet a tontu te loolu da koo jëlee ci ñun aussi bien le transport aussi la manutention ñoom ñoo ko def c'est les chefs de village wala les comités villageois qui sont def loolu ñoo ko indi nii ñuy procédé di ko def moom c'est des yu nga xam ne ñun duñ ci dugg à notre niveau parce que ñun participer wuñ ci loolu dugguñ ci de toute façon on les a instruits à ce seen ceeb daal na ngeen ko jëli na ngeen ko indi ci population yi.